murit di xam ngeen ni làbbe bii toog gàcceel na ñi fi indi woon sëñ bi jox na nu suuf nu war koo fàttalikoo banti sëriñ Touba yañ sempi woon fii fii la woon dégg nga léegi ñu rëkk kolos bi sëñ Moussa ko wax fekkoon na seex Bamba defoon fa jàkk fa penku quartier ga mu jublu Makka bu quartier gay it bamba dal di noddu ñu maaj mu kàbbar noon ya far ko gedd capitaine ba ñëw fa naan ko bamba jàkk xewu fi doonu xatal sa jullikaay bi xaju fi quartier gaa wëq ñëw tasaare jàkka ja njool màkka ñëw fa naan ko am nga maxraja njool màkka war na koy ajaayibu jox ko ndigal mu taalifaat mawaayibu ba mu salli ba naan wa sallim njool màkka tontu ko alamu talim jibril la ko tegtal wa duru yaasim bur yàlla tàmpel koy ay jumaay boppam tey loolu la waa Mayomba def jël suuf sit bi ñu jox ko Serigne Touba waa gars yi dama leen di laaj kan moo koy tabax du murit yi benn murit joxe na fukki junni nan nu fekk fii acca sëñ Omar Dieng joxe na cinq tonnes ciment ma nga ne borom mbaxana bu verte be dina bëtu sëñ Amadou Touba ñaan nee na ma su ma àggee Sénégal danaa joxe sama participation eh barab bi defar barab yépp ñun ñëpp liggéey suñuy kër ku Serigne Touba jaral dara nanga jóg ñëw fii nu jaayante tey bi su jaayante la ku bëgg xaalis yomb la barke Cheikh Mat Bamba ñëwal waaw ah xaadim sa turandoo da ngay sot xaadim borom jaaro bi joxe na ñaar fukki junni na bari na bar na ma kenn jox kaala na ma kenn jox kaala na ma kenn jox kaala ok déedéet bii day tuuti nan ma jox kaala nañ ma jox kaala gu xaw a yaatu nan jaayanteeg sëñ Touba kër gi defar kër yëpp a ngi sëñ Pape Samb jox na ma ñaar fukki junni na na jokkoo gaay yi oh sëñ Kalaam tey tey tey laa bëgg nu jaayante barke Cheikh Ahmad Bamba kër gi defar kër yëpp a ngi loolu nag moom dara du ko jar barke sëñ Touba gaay yi nan gore war na noo gore sant sëñ Touba bu nekkul di bind boo ma nga yëri muul bu bët yey nelaw it xol ba moom ma ngay xool bu cër yey nelaw it ruuga dem aras moom xanaa war na buraax mbaa mu war ca ay soom te laylaa du ko tee dem ca pays diwaan jëwriñ jox na ma fukki junni laylaa du ko tee dem ca pays diwaan ca paas yoon yañ sàkkar rijaale lay naan ana ana kaala gi nañ ko indi nii indi ko nii doxin ba dafa simple mu jekk ay peer daayira forzanti fàggu nañ ciment bi am na ñu joxe deux cent mille mooy waa bene waa bene participer nan as jërëjëf waaw da daan Baye Fall maa yomba nee na joxe na ñaari yow yaa war a joxe ñaari tonne ciment si Saliou Samb joxe na une tonne ciment barke Serigne Touba gars yi jaayante tey damaa bëgg gars yi am xaalis moo tax ma yi te bu nu demee nan leen def kër gi sunu kër bakke baddo jaayante na fukki fan fukki tonne ciment waaw cinquante mille yi ma joxe woon xaasim dana bu ma ko wax moom moo ko joxe oh oh voilà l'église a donné <laughs> l'église l'église a participé sëñ Fallou Diouf joxe na tonne nañ ma bindal yooyu parce que ci télé bi laay taxawaat di ko wax. bu ma demee Touba TV bi laay taxawaat toog naan diw joxe woon na. ku diggéey te joxe woo ko danaa ko wax barke Cheikh Mat Bamba na murid yëpp jaayante ngir sëñ Touba soxna maam Faati Isa jërëjëf jërëjëf Mbakke joxe bi waaw barke sëñ Touba ah. wuy ma wuy ma mais xaadim na sa sant na santal yàlla xamul tax xamul tax une tonne fii dóor egg suuf fii maa yomba la danañ joxe jaru ko te it li ñuy na doon ak tàmbali lii ak bi rek la ñuy waa xitma bu montagne sainte joxe na ñaar fukki junni bu yeggee li dina ko joxe cinq tonnes ciment la waa montagne cinq joxe barke sëñ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 Mbacke yàlla na la yomb jërëjëf Mbacke. Mhm. ah ki teewal Baye Fall yëpp moo ki rak yi muy àndal yëpp doonoon pare maam Cheikh Rahima Fall ci journée bi Serigne Cheikh Khadim Fall l'homme du premier mai joxe na ñeent fukki junni tàmbalee ko nee na tegu xeer nee na fu liggéey bi toll na koy xam di ko yëg yow de Fall loo wax gëm ko. France la jóge le 13 juillet passé mu taxawal fa journée bi Cheikh Ibrahima Fall waaye fa la jóge ñëw fi adjoint adjoint maire adjoint maire bu jandeer ñu koy wax Amadou Mame Diop Amadou Mame Diop l'adjoint maire du jandeer dina joxe tonu ciment ah Amadou Mame Diop waaw adjoint maire adjoint maire bu jandeer nee na joxe na tonne. dina joxe tonne ciment. dina joxe une tonne de ciment. nañ ko bind incha nañ ko bind day ñëw. lii maa ah waa kër sëñ Sam Mbaye sunu professeur sëñ Sam Jibi Diop rakki sëñ Fall waaw Jibi Jibi waaw sëñ Fall bu soo xolam sedd na tey waaw ñi jaayante ñëpp nañ ñëw présenté waat fii ñu bindaat leen joxe nañ fukki junni waa kër sëñ Sam bu liggéey bu tollu daa ko yëg xaadim nee na fu liggéey bi toll na ko yëg. li fekk sëriñ Tuubaa may teral. li fekk sëriñ Tuubaa koy teral. lépp lu mu am lu am. fas naa ko indi ci barab dina ko indi nee na ci barab. Euh, maire bi dafa am lu mu wax lu am solo. maire dëkk bi nee na nan fàttali ko lii nu sëñ see xaadim fàttali bërki démb bisu tey bii la sëñ Tuubaa làqu woon muy 19 juillet ci weeru Tuubaa. sëñ Amadou Tidiane euh, te ñaan mi nee na sasoo na 10 tonnes de waaye tàccu leen ko ngir sëñ Touba Amadou Touba ñaan mi doon wax sànq di def discours bi na moom lu mu wax def ko ah soxna si jox na ma ñaari lami or barke Cheikh Ahmadou Bamba moo ko sasoo ngir sëñ Touba am boole ko ci buñ demee jaay ko waaw ah? Fatim mu alaaji Yande Diop ah kooku war naa joxe alaaji Yande moom seex mu Mourtada nee na cinq tonnes yi mu sasoo woon nee na tàmbalee na fukki junni Fatim mu alaaj yande Fatim jóg waa kër sëñ Fallou Bousso nee na ñoo ci waroon a jiitu de nee na ñoom sasoon nañ un million cinq cent buñ demee Libreville joxe ko sëñ Fallou Bousso tubaab yi loolu lañ bëggoon tax ñu indi ko Ndakaaru tëj ko ci néeg boo xam ni sëñ Sam mi joxe waa këram joxe léegi nee na bi muy dugg ci néeg bi dañoo dindi kaale gi biñ ko ba ma xëy ci biir tànk bi mu njëkk a teg ci ràbb la ko teg booba bu doon keneen du teg bi ci des waaye da koo tegaat mu jam moom la sëñ Moussa naan fi yow ma te jumaati lañ ko tàbbal ci néeg bu lëndëm noonu ya naan ko làmbal mu làmb daj fa ay gobar ak rabbu ñu tëj ko foofa dem mu des fa ak rabbu mu jublu xibla bëgg a kàbbar waaye mënta su jóot nag ngir tartar tubaab yi loolu lañ bëggoon tax ñu def ko ñu échec foofu nes tuut te suba ga ñu dugal ko batu Moussa Ndiaye jaayante ne une tonne ciment mécanicien Khadim Seck Touba Vision une tonne de ciment ñu daal di koy jël dugal ko gaal indi ko entre Conakry Dakar ñu ne ko doo julli sunu bato Monsieur l'ambassadeur du Sénégal Gabon je voudrais les autorités gabonaises du soutien et de l'accompagnement qui ont permis le déroulement de cette caravane dans d'excellentes conditions. Ce soutien des autorités gabonaises à l'endroit du comité d'organisation montre que la fraternité des relations entre nos deux pays n'est plus à démontrer. Je voudrais aussi adresser mes sincères remerciements aux membres de la mission catholique Sainte-Odile de Mayumba pour l'accueil et l'hospitalité qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée hier soir. L'ambassade du Sénégal a tenu à être présent parce que nous savons que Mayumba est dans le cœur des Sénégalais. Comme d'ailleurs nous en sommes très sûrs, la ville de Touba est dans le cœur des Gabonais. En Adès, les visites répétitives que les autorités ont eu à effectuer près du Khalif général des Mourides. Chères autorités religieuses, cette, cette assemblée réunissant à la fois des guides musulmans et chrétiens est un bel exemple de dialogue interreligieux à montrer à travers le monde. Euh, je voudrais terminer juste par euh, demander à tous les pèlerins. Parce que Mayumba, c'est une terre de recueillement. C'est une terre aussi qui représente beaucoup de choses sur le plan symbolique pour les Sénégalais et pour les Gabonais même. Je voudrais demander à tous les pèlerins, dans le recueillement, de prier pour que la paix continue de régner dans nos deux pays frères et que aussi les relations entre le Gabon et le Sénégal se solidifient davantage pour le bien de tous. Je vous remercie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous avons fait mention de Myriam, de Marie, aussi bien auprès de la communauté catholique qu'auprès de la communauté mouride. Alors nous allons mettre cette conclusion-là sous sa constante protection. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En concluant ce moment, j'aimerais rendre grâce à Dieu, Allah, le bon, le miséricordieux, pour nous avoir accordé ce temps. Et je rends grâce à Dieu aussi pour tous les organisateurs aussi bien du côté de Touba que du côté du Gabon. Et il me sied en ce moment d'envoyer un vibrant remerciement à son Excellence Serigne Muntaka Bassirou grand calife de la ville sainte de Touba, calife général des Mourides, ici représenté par son fils ainsi que par toute sa suite. Pour vous dire au Gabon, pour que vous compreniez l'importance de Touba pour les Mourides, Touba est pour les Mourides ce que Rome est pour les catholiques. Et d'une certaine manière, Mayumba est pour les Mourides ce que la Terre Sainte est pour les catholiques, c'est-à-dire des lieux de départ d'une expérience extraordinaire. Et pour me répéter, je nous ai dit que là où les cœurs sont ouverts et la vérité se manifeste en général, les gens s'unissent, les gens se complètent. Et c'est pour cela, en partant des espaces plus grands, espaces plus grands que sont les continents, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'Europe et de l'Afrique, mais nous pouvons encore descendre. Qu'est-ce qu'il est beau de voir la communauté sénégalaise et la communauté gabonaise vivre une grande amitié déjà au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau religieux. Et comme l'a dit celui qui m'a précédé, j'aimerais que nous continuions à prier pour le Gabon qui est en train de vivre une phase très importante de son histoire depuis le 30 août 2023 avec l'instauration du comité pour la transition et la restauration des institutions présidé par son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, chef de la transition, chef de la République, chef de l'État, et qui, grâce à son ministre du Tourisme qui nous a accompagnés à Touba, a pu faire tisser un lien très important avec et le grand calife et la ville de Touba. Et comment oublier la ville de Mayumba par son délégué spécial et le délégué spécial adjoint qui, avec nous, sommes allés à Touba pour tisser cette relation. J'aimerais nous faire remarquer que l'année prochaine, ce seront les ans de l'expérience que nous célébrons. Et permettez-moi d'être un peu faible, de croire que 130 ans, c'est un chiffre et ce serait un bon chiffre pour faire un pèlerinage, on ne va pas dire grandiose, mais pourquoi pas au cours duquel nous allons nous retrouver et après cette expérience que nous nous, nous nous connaissons, nous nous voyons, essayez en vous demandant de nous excuser pour les imperfections, en essayant de, de l'améliorer. Donc c'est une invitation au comité d'organisation à partir de maintenant de se mettre au travail pour celui de l'an prochain sans dormir. Et nous remercions les autorités de l'ambassade par l'ambassadeur qui nous avait adressé une correspondance relative à ce pèlerinage. Nous remercions le ministère du Tourisme qui aurait voulu être là avec nous parce que quand il s'était rendu au Sénégal, il sait que c'est un pèlerinage. Mais un pèlerinage, c'est aussi un mouvement de personne Et un mouvement de personnes, c'est aussi un tourisme. Alors voilà pourquoi, en conjuguant les deux mouvements, en joignant l'utile à l'agréable, ça s'est fait de cette manière. Et n'oublions pas aussi le panafricanisme déjà commencé au Sénégal et qui nous a été rappelé par Yannick, qui nous demande que les deux fleuves, si vous les deux branches de nos deux pays puissent et culturellement et j'ai envie de dire socialement, politiquement, tout ce que nous voudrions mettre diplomatiquement et culturellement, s'unir davantage. Alors, unissons-nous aujourd'hui à Mayumba, unissons-nous à Touba, unissons-nous que nos cœurs s'unissent aussi davantage pour que notre expérience islamo-chrétienne devienne, pourquoi pas, un modèle de prière ensemble, de cheminement ensemble sur la terre. Oui, comme l'a dit Bamba, servir toutes les créatures et que notre métier devienne un acte d'adoration pour accéder au Seigneur. Nous chrétiens, on le dirait avec Saint Benoît, ora et labora, c'est-à-dire prie et travail. que le travail devienne prière et que la prière devienne travail pour un monde meilleur. Comme le temps passe, je n'aimerais pas m'éterniser davantage et excusez ma faiblesse de ne pas pouvoir citer tout le monde. Donc je dirais à vous tous, à vos titres, grades, révérences et fonctions, comme enfants de Dieu, soyez tous remerciés et soyez tous honorés. et d'une manière symbolique, je m'incline devant tous vos pieds pour embrasser vos pieds, pour que ces pieds qui vont poursuivre le pèlerinage jusqu'à Touba, certains à port à Libreville et dans tout le Gabon, que ces pieds apportent la bonne nouvelle du salut, de la réconciliation, d'élévation spirituelle et de paix ensemble. Que Allah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 Le Seigneur soit avec vous. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous protège, vous accompagne et vous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas la conclusion du pèlerinage, mais c'est plutôt la conclusion de nos prises de parole parce que tout de suite, il va nous donner une activité que nous allons faire et manger. Et nous allons donc suivre le programme tel qu'il a été tracé. Mais vraiment, comme le CTRI qui est là-bas fait ça ici, souvent on vous salue, on vous salue. Soyez salués. Mesdames et messieurs, les pèlerins et toute l'administration locale et religieuse et tous ceux qui ont pris part à ce grand rassemblement. Nous sommes donc euh, à la fin de nos activités de la parole. Nous allons vous inviter tout à l'heure de visiter l'église qui a été un lieu très promoteur pour l'élévation de Grand Cheikh Amadou Bamba Mbake. Et aussitôt, nous allons passer aux choses de ce qui peut nous renforcer et nous donner encore le courage de continuer à prier et à continuer notre voyage à travers le Gabon je vous remercie. soxna Ngoone Ndiaye daaw jéeg dafee ñëw bu Masaalikul Jinaan. soxna Ngoone Ndiaye bu Masaalik daaw jéeg dafee ñëw bàyyi fi fukki junni ak juróom ne kër sëñ Touba gi muy dégg. bis buñ ko waxee nañ ko ci dugal dal di koy jox sëñ naar mi soxnaam teg ci moom un tonne de ciment. daayira Liwi porte parole baa ngi nii. sunu xal sunu ki nga xam ne mooy sunu njiitu daayira. njiitu daayira ba. moom ñoo moom. def nañ ci un million. def nañ ci un million. àgg libre bi ñu génn ko joxe. nee na bu ñuy àgg liwi rek di ko génne di ko joxe. léegi loolu ak tàmbali la sëñ xaasim ah maam jaara bu sama mos joxe na ñaari junni waaw góor Youssou Fall joxe na une tonne. Youssou Fall joxe na une tonne. Babacar Cissé joxe wali raadaw duran